nit dangaa war a mat kilifa euh, boo amee soxna gis keneen bëgg ko war ngaa mën a jël sa courage jël ko takk ko waaye nekk ci suuf di doxaan di def naka su dul noonu ba tey jii euh, ndumbe tenir ko en otage yaakaar naa ni moom moo ko yóbbee boppam ñu jàll ci buri moom nag ñëw na seet si Kumba pour waxtaan ak moom ci kaawu Cerno ak mbirum miraas bi waaye nag ki nga xam ni moo di yaayu Cerno di Penda euh, ñëwati na rek daal di sànni ay trak daal di xas Kumba comme ni mu koy defee saa su ne waaye buri moom ku ne xam na ni moom rafetal moom si lay dox ba tax na bëggul coow bëggul wax ju bari ñu jàll si Cerno moom nag ñëw na seet si Boury pour waxtaan ak moom pour nag daal di koy baalu àq ndax li mu dund ak papaam bëggul mu rafetewu ak ki nga xam ni moo di euh, Boury ndax olof njaaree wax naan rëcc dina fekk jëf wees te nag euh, nit euh, da nekk ak nit ngeen war a nag war a nekk si benn war a war a juboo waaye nag nga koy soofantal ba mu trop tard te loolu moo dal Thierno ak papaam ba tax na bëggul mu amaat ak yaayam Boury ba tax na mu ñëw waxtaan ak Boury ba ñoom ñaar déggoon nañu Thierno nag gis nañ ni pare na pour daal di am ñaari yaay muy Penda ak Boury te it nag déggal ci ku ci nekk ñu jàll ci ci Papa Gueye moom nag jël na décision daal di def li Ndumbe euh, bëgg parce que xam na ni su ko deful problème rek la koy indil euh, ba tax na nag mu daal di bëgg absenté cinq jours ci école bi muy liggéeyee euh, daal di koy dénk dénkaane juste nag pour satisfaire Ndumbe ndax xam na ni su ko deful rek du ci génn ñu jeexal ak Kumba Kumba nag moom mënta comprendre changement bi nga xam ni Thierno def na ko par rapport ak héritage bu papaam ndax dafa mel ni kuñ xabtal mel ba muy ba muy wax nag penda da koo dégg ba tax na penda ñëw daal di koy yàq lu mel ni xeme waaye kumba ku ne xam na ni moom it meñam dammul ci biir poosam lu ko waaye wax dina la ko delloo ba tax na nag moom it xas na ko ba mu ràpp ba sax joxoñ ko paaka waaye nag def na erreur ndax ku ne xam na ni nit bu lay ut lu ndaw loo def rek mën na cee jaaree indi la problème ba tax na penda woo na Cerno daal di koy raconté xew yëpp waaye ku ne xam na ni du da cee yokk wax loo xam ni kumba xalaatu ko te it